mbokk yi ñuy déglu ci gox yu nekk ñu ngi leen di nuyu di leen ziara sunu kàddu di bawoo fii ci al idaa Safina FM quatre vingt dix kàddu gi di bawoo ci Scat Urbam ñu ngi nuyu mbooleem réew mi ak bitim réew. di len ñaanal tawfiq lu gor gu bax ga daan ñaan alxaaji ko yalla dolli ay leer daf daan wax ni lepp lu nuy am yalla nañu amale yalla lu nuy ñakit ndok waye yalla nañu am yalla moy yalla mo gëna yomb yalla nañ ko yalla jafel jaamu yalla mo gëna jafé jafe nañ ko yalla yombal non la ko daan ñaané muy ñaan gu am solo tabarakallah ñu dellu siwaat ci sunu émission bi nga xam ne ñoo ngi ci mottali sunu tarbiya ci mag ñu baax ñi muy jaar-jaaru mag ñi mag ñooñu nga xam ni ay roy teef lañu roy leen yiwu aduna ngi ci ak yiwu ñi bëgg lu baax ñépp ni ngéej jot ci seeni jeexital ba roy ko jariñu ca ndax roy moom ala kulli xaalin du mën a ñàkk benn nga roy ku baax walla nga roy ku bon kon lii mbokk mu baax ma daan wax naan yonent bi sallallahu alayhi wa bi mu jógee màkka gàddaay jëm Madina di rawale pas-pasam ak diineem waa Makka topp ci moom di ko dab di ko dàq pour dab ko bu ñu ko dabee rey ko fekk na waa Madina ñoom ñu ngi koy teeru pour bu ñëwee ñu roy ko ñii di ko dàq pour bu ñu ko dabee rey ko ñii di ko teeru pour bu ñu ko gisee roy ko chatanama baynal amrayni tabarakallah ñu toog nak suñu jarbaat di suñu xarit di tàggkatu yonent bi di ko ñu xam ci réew mi muy serigne ibrahima mbub ñu gën ko xam ci mam abdou garminga tabarakallah bobu sax xamna ni moy ñaar fikkeelu woyam sax waye la jab di mom boko feraso rek dal di tay siwe ñu gën ko ci xam tabarakallah mu gungé ñu ñew ci plateau bi di suñu invité eh, gitu ya. eh. dina ba ca kanam tabarakallahu dina nuyo nu nuyu tamit tabarakallahu sunu directrice xajja ñu mabba ak sunu technicien yi moy asan ak matar den ñaanal yalla dool leen tawfiq eh, jamono yep nak tabarakallahu no ngi waxtane mbiru aj màkka ndax biñuy wax ci jaar jaaru mag ñi ba agsi ci Seydi Hadji ñu ne ah comme Seydi Hadji Malick alxaaji Malick alxaaji Malick ba aj ñëw na du du du ay ñu waxtaan ci aj Makka ñu tàmbali woon bii passé di ci waxtaan dalaloon ku baax muy al ustaaz Ousmane Lo nekkoon koo xam ni tabaarakallaahu ku miin màkk la waaye ku ko miin ci téere yi avant mu koy miin ci janoo waxtaan waxtaan waxtaanu am solo ak El Hadj Malick Fall benn tabaarakallaahu cerni cerno wande ba ca ba ca mujj waxtaan wa ca la cerno daal di feelu cerno Hamidou Yoro Bane feelu bu am am solo defal nu ñambaas ñambaas nag jigéen ñi woddoo sër xam nañ ko beneen élément bu ñuy dolli ca sërba te loolu day tax woddu yin wa yomb kon tabaarakallaahu Ibrahima bala ñuy tàmbali sax nga nuyoo rek mm-hmm. ñu ko defee boo nuyoo ba pare ñu door a dugg ci waxtaan wi mm-hmm. aouzu billahi samil alim min asheytaani arrajim bismillahi arrahmani irrahim wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa tabaarakallaahu ustaas ñu ngi lay nuyu di lay ziyaara di nuyu mboolem auditeur ak auditrice bi nga xam ne yéen ngi déglu tabarakallahu seen rajo bii di Safina FM waaye di jaarale nuyoo boobu si tabarakallahu seen directeur général di Thierno Hamidou Yoro Bane di ko ziar bu baax di ñaan yàlla guddal fanam yàggal ko si réew mi ba lépp lu mu mébét si diine ji tabarakallahu mébét ko si tarixa bi yàlla defal ko ko ndax mu ngi si tabarakallahu ñu ngi koy waxtaane saa su ne lu muy liggéey si rajo bi ànd kooku yéen ñi nga xam ne yéenay animé émission yi dem na ba waxuma la rajo yi si roy sax waaye léegi télé boo tijji tabaarakallaahu ñu ngi wax diine tabaarakallaahu di teg mbirum diine te àjjuma rek lañ daan gis yu mel noonu waaye loolu yëpp tabaarakallaahu yiw la ñu ngi ñaan barke bi yàlla wàcc si yéen ñi koy def ba si auditeurs yi nga xam ne ñoo ngi leen di déglu di nuyu euh, madame la directrice tabaarakallaahu ak technicien bi muy àndal émission bi tabaarakallaahu alxames bu jot waaye mu yónnee la fi not tabaarakallaahu yii ñi nga xamante ni yàlla dogal na ñu ngi jàppale rajo bi guddeeg bëccëg e, muy soxna mama Sahaba Diop yàlla dogal di madam ja dëkk fii si Padois e, directrice ne nga gërëm ko bu baax mhm. tabarakallahu ndax bokk na si jàppale rajo bi mhm. ba si wàllu nettoiement yi nga xamante ne ñu seetal rajo bi rek moom moo ko fi def ak ñeneen ñi nga xam ne xam naa si fin bi. Mhm. di nga leen tudd tabaarakallaahu loolu daal mooy nuyoo bi xanaa rek e, tijjilee la ay am daax si Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mhm. yoo xam ni Seydi El Hadji Abdoul Aziz Sy baax moo ko def si moom di wax ay mbaaxam di wax ay karaamaam rawatina ñi nga xam ne ñooy tagg yonent bi. kàddu boobu nga xamante ni moom moo ko def si si e, e, yonent bi sallallahu alayhi wa mhm. ko defee dina si baax lool si ñi nga xam ne ñooy waaj a aji màkka te nga war ko waxtaanee tey ñu bëggalee leen ko beneen bi it euh, bis boo duggee ci waxtaan wi incha allahu rabbi na dina am yoo xam ne ay laaj la yoo xam ni dinañ la dinaa la ko laaj ci wàllu bërëb bu tedd ba ndax donte demagun fa waaye dinañ dégg leen ci seeni waxtaan tabaarakallah ay mbir yu kéemaanu yu ne ci bërëb ba kon baax na ñu ñi nga xamante ni yàlla dogalagul ñu dem fa ñuy déglu yu mel noonu di ko tàqamti ko bis bu ñu fa yàlla yóbboo ñu mën ko jëfe incha allah ko defee rek nu barkeelu tuuti ay am daax si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam وحصل دواما مطن بات غاسم تنال الذي تبغي من الفتح واليسر به فاستغل يا عبد ما دمت قادرا فمات رسول الله الله من أعظم الذور بنال ما نال الرجال مراتبا من الملك العلام جلت عن الخسر فمة رسول الله أحمد غدتي محبته في القلب كالنخس في الصخر أيا من بالخيرات يا سيد الورى وخاتم النظم الأنبياء ذوي القدر فها نحن عند الباب يا سيد الورى بجايكم نرجو سفاغة في الخسر وليس لنا في اليوم والغد منقذ سوى جايكم في خالة الدنخ والخسر أتيناك مغمومين راجين كصف ما لدينا من الآذان والكرب والدير أيا منقذ الغرقاء جميعا فإنني غريق فأنقذني من أهوال ذي الدهر فأنت لنا ركن قوي ومفزع إذا اصطدت الأهوال في الثير والجهر أغشنا فليس الحال يخفى عليكم xiyaasal waral hadi ila subilil xayri ilaahiya farxam wax fu wastu tafaddulan bi afdalil mabruusin ilal xalqi lil faxri amawlaaya yaa dal fadli juudika dallani alayka fajud bil afi yaa waasi asitri madatna ak ku fasuli raajina minkumoo جميع الذي نبغيه من الغز والنسر وبابك ما وافاه عبد ولم ينل بجودك ما يرجو من الفوز والأجر صلاة وتسليم على شافع الورى محمد المختار من ملك الأمر وأزواجه والآل أنجم ديني wasaabi mu di tuxaati zawil kufre yoneen la muhammadu yoneen la abdalaay baayam aminata kookoy yaayam de yoneen la tabarakallahu ustaas loolu mooy nuyoo bi ñu ngi siy bëggal nag sunu yaay xajja alimatu mbaw tabarakallahu daanaka këram la nu yendu tey momit muy wacc dem ziaru yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sallam yobbalam la ak soxna nday kan ñom ñep di soppé radio bi di say soppe xamna ni ñu ngi déglu ñu ngi leen di ziaru bax ci si wayu alaaji Abdoulaye da dabbaax boobu kon ñu bayil rek nga dugg ci sa waxtaan inshallah rabbi hmm tabarakallahu jërëjëf eh, Ibrahim eh, bëgg nañ ci nuyo bi ci qasida alxaaji Abdoul Aziz boobu eh, tabarakallahu tabarakallah buñu bañul non dévier thème bi ci la ñuy waxtaan waaye nag tabaarakallaahu baax na dina ñëwi dina ñëwi su ko defee nag eh, waxtaan nañ ci xam nga wax naa leen ci wàllu aj bi daanaka rajo boo taal télé boo taal ñu ngi ciy wax ci wàllu eh, farata yeeg sunna yeeg xab yeeg lépp waaye di ko maaka dañu toll woon ci Seydi Hadji Malick di ci waxtaan ba dugg ci wàllu aj ni ci do nu ciy waxtaan dafa amit lu mat a leeral loo xam ne dafa siiw te njabootam ñu ngi koy leeral ndax dafa yaatu ci réew mi ñuy wax ne Seydi Hadji malik aj na màkk mais dafa bàyyi ba dafa dem màkk fekk aj gi jàll bu yàgg ba kaaba gi ñu tëj ko mu ñëw taxaw janoog kaaba gi rek jàng ay baat bunt yi ubbeeku mu aj loolu eh, Serigne Cheikh Tidiane si Serigne Abdoul Aziz Sy kilifa yëpp wax nañ ci loolu moom di yaakaar ne yaa ngi jox sa kilifa martaba ba wàccee garaatam ndax Seydi Hadji Malick képp ñëpp nangu nañu xam-xamam bind na téere boo xam ne day wax ci wàllu aj Makka day jàngale aj nu ñu ko war a defee aj gasel xam na ne aj période la am mawsim la am léegi Seydi Hadji Malick bu xamee ak xam-xamam bu rëy boobu dema dem ba bàyyi ba aj jàll mu ñëw ca Makka fekk kaa bëgg a tëju mu jàng ay baat xëy na ña koy wax lañ ci jublu mooy jàng ay baat kaa ba ubbeeku lu mu nekk nekk miracle te wuuteeg sharia da ngay xam ne doonatul nekk miracle dafay nekk doonatul nekk sax lu ñu war a tiitaroo lu ñu war a euh, luy tuutal nit lay doon ndax bu boobaa dootu nekk aj waaw te Maodo boroom xam-xam la kon nag jooju wax dàqu na. si daaji Malick jamono ya muy àgg ca Màkka jamono aj la mu ajam gu rafet wax naa leen ni ñaari at dox na ko ngir àgg ca dëkk bu tedd ba e, tabaarakallaahu boole dugg ak dox xotti géej ak xotti jéeri ba àgg aj ajam gu rafet gi mu aj demoon ba am yéenay toog fa sax ba ñettee dellu siwaat Sénégal ndax cofeelam ci yonent bi ak xam ni deretam ak tabiaam li mu gën a dëppool mooy suuf su tedd soosu waaye nag li mu daan wax ni lu ma mas a def am ca ndam mag mu baax ma ko digal fa muy xalaate ngir toog màkk dëkkoog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ko génn góor mel ni ko xam li ne ci xelam mel ni ku ko xam tamaw lu ko ko kat ni ko foo bawoo mu ne ko Sénégal mu ne ko luy semibét mu ni ko dëkk fii dëkk ak yonent bi mu ne ko ah doo doo ci am yiw nag mu ni ko ah mu ne ko waaw waaw fa nga jóge fa ngay ëppee yiw delluwaatal hmm. mu daal di ñeekuwaat ñëw ci dunjoon nañ ko bi passé su ko defee nag tabaarakallaahu ak nekk bokk ci ponk yi juróomi ponk yi nga xam ne pays yi nga xam ne moo yenu lislaam حج بيت الله الحرام ركن من أركان الإسلام بن بونكولتش لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ورنا نتني قال لنا نكو تسينو لوس نورا دم مكة تكاو نمانكو بوخول الشرطي إي بيين الإسلام بي موتي أم كونديشن بني فان ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ni buniyal islam ala 50 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت man istataa ilayhi sabila daf ni lislaam ñu ngi ko tabax ci juróomi kenu bi ci jëkk mooy seede te dëggal ni amul benn buur bu dul yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonentam la sayyiduna muhammad benn ponk bi ca des iqaami sola saxal julli mooy di ko def régulièrement bi ca des ita zaka génne azaka bi ca des sawmi ramadan woor weeru koor bi ko juróomeel di xajju baytillahi alxaram man istataa ilay sabila mu ne aj néeg boobu nag mooy juróomeel bi aj néeg boobu ci koo xam ni mën na ko kon nag li ñuy yeete rek comme yàlla dogal na waxtaan nañ ci duñ ci delluwaat di ko baamuwaat usmaan Lo waxtaan na ci lu leer naññ xëy na dañuy delluwaat rek ci xam ni jaamu yàlla la du puukare du tiitaru du dara jaamu yàlla la gu sell goo xam ni jaamu gu metti la damay faral di wax ni surki bi ngay def ba agsi fi nga dëkkoon loolu koo xam ne ñi julli sax boo ko dee def julli ga metti ci yow donte cinq minutes la dem jàkka jàkka ji la gën a jege mënoo caa dem bu dee loolu jafe na la nga bëgg a dem dem daf tawaaf yi nga war a def yëpp def euh, saa yu na safa wal marwa def ramyul jimaar loolu yëpp nga war ko def te fekk euh, yow e tële nga ci fi pour sellal li la yàlla sant lolu wax nak ni li man istataa ilay sabila dafa am ay ay branche yo xamni ni fa ngay xol katan gi man gi dafa wax ni al istitaa hiya ay yakuna al muslim sahih al badan يملك من المواصلات ما يصل به إلى مكة حسب حاله bokk na ci wa yamliku zaadan yakfihi dahaban wa iyaaban zaidan ala nafaqati man talzimuhu nafaqatuhu nee na man googu dafay tàmbalee ci nga man ko ci moyen moyen yi loo paasee tax ñuy wax loo yóbbaloo waaye ñi fi nekkit nga xam ni boo fi dëddoo te bàyyi leen ak kese ñu tumuranke nga mettre leen ci condition yu bien yoo xam ni duñu xiif duñu mar ba ba ngay ñëw la nga leen daan na nga daan na mu daan sottee boo nga fexe ba loola nga waajal ko teg ko fi nga ko war a ba ñoom duñu tumuranke sa gannaaw loolu bokk na ci li mottali charti man googu bi ci des mooy wér gi yaram wi tamit wér boo gisee ñaare docteur yi di la consulter la ba gis yow war nga dem buñ la ndigal l'islam day ànd ak ñoom buñ la teree l'islam day ànd ak ñoom ci loolu waaye nag comme yéene aji gëm moo gën a matal jëfam bu fekkee docteur yi tere nañ la yi tamit te nga amoon yéene yoolu aj lay doon waaw su ko defee itam ci wàllu dépense yooyu wax nañ ni dina la dina taxit eh, li ciy gën a liy tax mu gën a wér mooy bor yi bu dee da am ay ameel ay jullit ay bor wax dëgg yàlla amee ay bor war ko fay seen borom di la móolu ànd ak tumurankeeg jaaxle nga jël alal jooju di ko fajee yeneeni soxla wala nga di ko di dem màkk te fayuloo bor yi kooku yi tamit lislaam sant ko kenn waaw kon nag Ibrahima Siraju Malik radiyallahu taala anhu am na ku ko doon seggloo xaalisam ngir war caa dem màkka bu ñu ko dee xayma de mën na nekk sax Euh, ay millions waaye ba mu ko seetee la mu ca tiire ni moo ca lew loola jógewu paas paasul sax fii ak ndar loolu li muy wane ni mooy la ca la ca dagan bariwul te yonent bi nee bépp ko xam ne ni alal ju araam nga ñëwee nee boo dikkee boo nee labayka ñun la laa labayka wala saadayka fa an fa inna xajjaka marduut sa aj googu dañ la koy delloowaat kon su ko defee yooyu yëpp tamit may matuwaay la yu jël bala ngay départ di dem tàggu nag say ñooñ balu leen àq waaw loolu mbokk yaa ngi ciy wax tout temps waaye damay wax ni Sénégal seen aj màkka dafa mujj metti te farata lu yomb la ndax laa yukallifu llahu nafsan ila ila wusaaha yàlla du teg nit ki mukk lu mu lay teg dina xam dina dem ba xam ni lii lu nit man la moo tax maa ngi leen di nettali ci waxtaan bi passé ni sunu maam ju baax ji ci Touba nee na lépp loo yenu mu diis lool ba mënoo dem boo yenni koo jeex ko la la diisal du lu la yàlla sant sa bakkan la waaye li la yàlla sant moom looy jàppandi la Sénégal seen aj màkk commencement waajtaay wi rek ak waajtaay bi ngay waaj pour war a dem di tàggatoo ci jouru départ bi rek nee na loolu biir màkk la waaw nee na préparation li ngay préparer ngir def ko ay charité pour jox ko say dëkkandoo loolu rek biir màkk la nee na boo demee ba àgg dellu siwaat gi préparation la ngay préparer pour nganale rek nee na biir màkk la tey bii bu fekkee xayma nañ ko ci un million nangam xayma devise bi ci un million nangam war a nekk deux million yu tegu loolu loo ci dolli rek fitna day daal di tàbbi boo dul ko man am moyen lool lool te boo ko amee itam boo amee moyen itam l'islam bëggul ko yàq nga ne léegi da ngay tàggatoo yëgal ñépp ñu ñëw nga ne fokk nga toggal leen añ waaj tàggatoog ñoom dem la nga cay fere dem ba xaw a dab dabal biee bi ña ñëw di la tàggulu kenn ku ci nekk bëgg a yëkkati ñaar téeméer yoo xam ne ma ngi cay séentu kol ndax boo ko joxee lu yées ñaar téeméer boo ñibbisee mu gis boppam mu mer ci ñu bari yooyu nga xam ne ku la jox ñaar téeméer ma ngay séentu kol walla kurus walla mbaxana yooyu yépp nekk ci sa bopp ba yow sax amaana teewlu li la tax a jóg teewlu sa borom day të nga jóge fi ba dem boo demee ba àgg yaa ngi xalaat mbiru sëri ca yooyu loolu gàllankoor sa teewlu sa xel lu dal foo toog boo toogee ci raw yonent bi doo sentir yonent bi boo toogee ci kaaba gi ak li kaaba gi mel ak xëyba bi ko yàlla defal doo ko sentir ndax di xalaat nooy def dem nga ba mujj sa armal sax boko dindé ya nga yakamti déplacer dem ci marché yi nga xamné dañuy jaay matériel mm. yo xam mom nga wara indalé indaale bu mu nga fay nekké ba dota la aj coono bu mu nga fay nekké ba dota la aj ba yalla dogal nga war fa jóge ñibisi mm. ñu dila wajal ngan nganale goo xam ne lu gatt gatt di nga ray nak ak yete ya and yep mu nekati benen frais yooyu yëpp nag aju ci sa kaw loos ba daanaka aj màkk dafay mujj nekk fitna ci yow ndax boo xaymaa bu ñu la nee juróomi million ngay am sa màkk door a leer nañ nga dem ni nga ko bëggee dikk ni nga ko bëggee ci jamono bu naqari bii boo moytuwul sax nga daal di mujj daal di bàyyi farata ngir ragal mbamb walla ragal fitna loolu lañ ciy bañ. su ko defee tabaarakallaahu loolu ñu baaxee sénégalais yi ci loolu ñu bàyyi ci xel donte nag période bi ñuy toll nga xam ne ñu bari clôturé nañu dem rek fi sës xëy na wàññi rek lay doon waaye am na ñoo xam ne lañuy fas fas nañ ko ba noppi su ko defee itam liñ doon leeral ci ñaari point yi te am mbokk yi wax ni dañ bëggoon gam ci gën a mu gën a leer ci seen bopp muy ñaari baat yi ma leen doon wax bii passé mooy da ngay faral di dégg ñu wax ne diw euh, kaalaam la jëli woon léeg-léegi nga di gis ci nganale nit ñi ñëw daal di naan ndoxu sam-sam daal di ni sàllaaw sa kaala nga jëli woon wolof waxam dafa riche dafa xóot lañ ca ràbb lépp mooy baax nga mbaax goo xam ne yiw nga yiw goo xam ni dem màkka lu secondaire la ci yow ndax li nga def ci lu baax lépp mais loolu tamit boo ko seetloo ci sunna war na mën a nekk kàddu googu lu dëggu ndax yonent bi sallallahu alayhi wa فخن الصلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام جلت سما نيك بي سما جاكا جي موغن جني جلي يو جلي فنين بامو ديس كابك يونتي موكا واخ وايا واخنا سي بنين روايه ني nga and ak sa mbokk di ko doxle ay soxlaam ba soxla yee faju wala sax fajul waaye def nga yitte ba moo julli ci sama jàkk ñoo loolu nag moo tax ñu ne boo yàggee jàppale say mbokk ci seeni soxla di ca daj lu nekk nee na bu boobaa soo ca jógee jëmati màkka dangay ngay jëli kaala waaye julli nga ca raw di yonent bi ay yooni yoon ndax def nga ko ba tàyyi ko defee point boobu boobu mooy bu njëkk bi bu njëkk bi beneen bu ñaareel bi dinañ ci ñëw e, dañu bëgg a dugg ci waxtu waxtu julli jot na déglu nodd gi su ko defee ñu tabaarakallahu mottali waxtaan wi وهو حقيقة بنيت على mbokk yi yal yàlla nangu ñaan yi eh, doole ñu tawféex eh, nangu jaamu yi ci na mu toll jéggal nu rëcc rëcc yëpp ko defee nag tabaarakallaahu ñu continuer waxtaan wi rek eh, tomb ñaareel boobu bala ñu ciy dugg Ibrahima sunu gan gi dafa am lu mu bëggoon a leerlu ci loolu ñu doon wax nii ci point bu njëkk bi ci loolu nga xam ne nit ñi dañ koy faral di wax ndax mën nañ ko delloo ci sunna wala déet kon nag Ibrahima euh, tabaarakallaahu yow la ñuy déglu. tabaarakallaahu jërëjëf oustaz euh, waxtaan wi leer na te lu muy gàtt gàtt jëlee nañ si tabaarakallaahu euh, xam-xam bu yaatu rawatina li nga wax ni lu yonent bi ni tabaarakallaahu ku julli sama jakka ji fudul kaaba ga rawee na junni yoon benen jakka budul bi ba pare dal di mengale ni kep ko xamni ci mbokki julli sa mbokkum jullit nga nek si yitem mo xam aaju ba fajuna wala fajuul yaangi melni ku julli sama jakka ji kon lolu lima ci deg moy ñi nga xamni ni mayu mayagu len wërseuk bañu mëna dem aji makka kon ñom seen aj nañ ko consacré gum si ñi si tabarakallah yité julli di ak yité seeni mbokk bu ko défé ñu am yool yooyu waye ñepp dal tabarakallah ñu ngi ñaan yalla may leen wërsek wuñu aje te ñu dem def aj gu tabarakallah hajjul mabrur kon ñu koy mabrur comme nuñ koy waxee yalla nangu xaj yépp euh, am amna kuy wote sànq suuf di sa soppé tabarakallah ya alimatu mbaw yalla dogal na mu ngi bég lool te né mu ngi déglu comme niñ ko waxee sank wa li ma doon bëgg laaj rek moy Euh, Medinatu Rasul bi nga xam ni yàlla dogal na képp ku aji rek fa ngay wàcc sax ke képp ku tabaarkallaahu dem Màkka ba ñëw boo jaarul Medina dinañ la laaj walla yow tabaarkallaahu da ngaa wérul wala tabaarkallaahu lu waral nga dem ba arabi arabi saoudite te demoo Medina ma doon laaj ba xam Medina moom si aj gi la bokk walla bokkul si aj gi. wala tabaarakallaahu boo ko deful sa aj kenn du ko nangu wala tabaarakallaahu moo taxoon ma ni woon naa laaj pour ñu am si ay leer ñu ñu leer lu si bu baax tabaarakallaahu mm-hmm. eh, Ibrahima jërëjëf tabaarakallaahu li nga laaj lu am solo la waxtaan wala passé broché nañ ci tuuti rek ndax euh, madinatul munawara yonent bi moo fa tëdd yonent bi di koo xam ne mooy buntu jaam ñi ci sunu boroom e, tabaraka wa taala waaye nag e, Madina bokkul ci ponk yi ci aj bokkul ci sunna yi bokkul ci farata yi waaye moo xam nga jëkkee ko moo xam nga mujje ko nag moo tax wax naa leen bi passé rek suñu benn sëriñ suñu kilifa Chérif Ibrahima Aïdara daan wax ni moo teewoon ñuy def aj ba pare bu ñu paree daal jaar ci nant bi ziar ko loola lu tax ma wax ko sax mooy madina boo fa demee ak dëkk ba na muy seddeek na muy féexeek na muy noppaleeg nit ña nañu neexe deret nga jaar ci xéewal googu ak péex moom ba pare jóge fa dugg màkka ci coono boo xam ne da ngay mujj sax bëgg a daw dellu madina looloo tax mu wax ko waaye li wër daal mooy aj moom lépp lépp màkka la ndax boo demee madina ba def fa fan ya nga fay def soo demee ba jub màkka ma muy bureau ali wala fa ngay armale foofa ngay tàmbalee li aju ci wàllu aj màkka bi kon nag euh, liñ la mën a wax rek mooy madina waaye xel xalaatul génn ko ci ndax yonent bi mooy buntu yàlla ci jaam ñi moo tax nga ziyaare ko tey dem màkka ba ñëw ñun ñun la ndax àgg nga madina nga ni mujjuma àgg madina ñëpp sa njortu rafet ci sa aj te yow sax sa njortu rafet ci sa aju ba ndax moom tabaarakallaa mooy buntu borom bi comme ni ma la ko waxee léegi. Mhm. E, waaye moom moomu nag moom yonent bi sallallahu alayhi wa dafa am poids lool ci aj Makka ni mu ko amee ci yeneen yeneen xeeti jaamu. Mhm. xam nga ne xoolal yàlla ni mu bañ a ko bokkaale. wax ni bàkkaar yëpp mën naa ko jéggale ba mu des ku bokk ku ma bokkaale te mooy tudd yàlla dendale leneen fi wetam. ba pare nag noonu la bañee nga ne ashhadu an laa ilaha illallah te tegoo ci wa ashhadu anna muhammadan rasulullah xoolal loolu ni mu yéemee ni mu bañee ku ko tudd tofal keneen ci kawam mel ku leen di dendalee ka gam-gamle ba pare bañ nga tudd yonent bi ni laa ilaha illallah te tegoo ci muhammadun rasulullah loolu rek dafa doy kéemtaan moo gis nga dafa am góor gu Cheikh Abal Xayri nee dama dem Madinatu Munawwara def naa dëkk ba juróomi fan waaye sentiruma dara mel ni maa ngi sama kër nee na ma daldi di dat ngu ba ca rawdu ba ma toog def tawassul ni ko assalaamu alayka ya afdal al anbiyaai wal mursalin ana dayfuka al ma ni maa ngi lay nuyu yow mi nga xam ne yaay sangub yonenteeg yonent ñi ñu yónneeg ñi ñu solo ñi ñëpp man da ñëw naa tey sa gan laa nee na foofu ma toog ca rawdu yonent bi rek wax loolu rek nelaw ngëmeen dugg ma ma daal di for bët nee na ma nelaw nelaw yu gàtt yoo xam ne nelaw yu dëgër ci biir nelaw yooyu ma gént gis yonent bi mu toog Aboubacar toog Omar toog Ousmane toog ñoom ñëpp ñu toog wër ko nee na ci gént gi de nee na Ousmane ni ma yaa abal xayr hada huwa rasulullah mm-hmm. yonent baa ngi nii mm-hmm. nee na ma ne yokk jox loxo yonent bi daal di koy nuyu nee na yonent bi daal di génn benn kàmp mburu jox ma ci gént gi de nee na ma xàmp xàmpaat rek nit tëxët daal di yeewu ci nelaw gis desitu mburu wi ci sama loxo <laughs> nee na ma yóbbaale ko sama kër nee na dundaat naa ay at yoo xam ni lekkuma benn pepp dugub wala luy jëm ci biir luy mën a suural nit yonent bi xam nga wax nañ ni ku ku gént mu nàndal dootoo mar ku gént mu leel lay dootoo xiif jagle yooyu ko yàlla jox nga xam ne lii ma wax moo ci gën a tuuti nangu naa ci sëriñ bi sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane si almaktum muy nettali ni benn mbokk bu bëggoon jox yonent bi hadiya mhm. tàndar man ndeysaan waaye amul fu mu ko def mu def ko ci lafu kaalaam bi mu dikkee sax nee na xawul ñemee wax yonent bi ni ko indil naa la tàndarma waaye dama ko amul fu ma ko def ma fas ko ci sama kaala xawu koo ñemee wax ndax xamul nu dara yonent bi toll ak nu ko yonent bi gisee waaye rek mu daal di takk fit wi ni ko ah, man de indil naa la. tàndarma waaye awma fu ma ko def ba ci sama lafu kaala laa ko fas. nee na yonent bi daal di fàkk suuf si fàkk fàkk fàkk fàkk ba jot kekk li ni ko sottil. Hmm. mu ne sutee tàndarma ja ca kekk la ci suuf. Hmm. yonent bi jël ndox ña ko waroon ku ne mën la dékkal nga raxasu ñëpp dékku dékk mun leen ay canu añ. nee na kenn ku nekk ñetti tàndarma nga ci jël lekk paase wu ko waaye ba bis ba heure ba dellu si waat kenn xiifut. <laughs> xam nga loolu. ku mel noonu tabaarakallaahu eh, jaare ci moom ba ngay dem walla nga mujj ko lu mu ci mën a doon. xamal ne rek moom mooy lépp. Mm-hmm. loolu ko Ahmad Shawqi wax ni Muhammadun basharun. Mm-hmm. laa kal bashar. bal huwa fawqa al ne yonent bi daal mbindeef la waaye bokkul ak mbindeef yi dafa mel ni rek xeer yi bu ñu dajee mbindeef yi bu ñu dajee di ay xeer wala yonent yi bu ne puttite seen biir day nekk jama wala wurusu ngalam moo tax waxaat na ko ci benn way ni in qultu fil in qulta fil amrillah aw qulta fihi naam fa xiiratullahi fii laa minka aw naami mu ni yonent bi in qulta fil amrillah boo ne mbir mbir bu ne xewee nga ni déedéet daal di koy dàq aw xulta fi naam wala nga ni waaw dal di koy saxal nee na yàlla moom day xool rek fa nga wax boo nee laa mu ni laa boo naam mu naam moo tax in qulta fil amri laa aw qulta fiihi naam hmm. fa llahi fi laa minka aw naami hmm. kon ibrahima tabarakallah. Yeb lu gudd la waaye li ma bëgg a wax rek mooy aj màkka bi moom madina bokk ci moo tax fukki julli yi nga fay dégg ñu naan ñeent fukki julli yi fukki julli yi loolu def mooy dëkk boo fa amee semaine Mm-hmm. bés bu ne nga dem julli ca jàkka juróomi waxtu boo ko multiplier cinq multiplier par sept daf lay jox quarante. Mm-hmm. mooy quarante prières boo fa toogul woon semaine du mat loolu. Mm-hmm. waaye tabaarakallaahu nekk ca Madina semaine di julli ca raw du yonent bi mu nekk lavage bu général. sa yaram set say ñaan nangu. yonent bi tabaarakallaahu daal di lay euh, soppi sa tabia. nga génn fa nag daal di sóobu ci jaamu yàlla. su boobaa sa xel dina daal kon nag ah, mu wàññeen. Euh, ma ni wax nañ tamit ni euh, si wàllu tabaski ñu ne yonent bi tabaski jot na mu rey ñaari xar. Mhm. ne benn bi reyal naa ko sama xeet yi nga xam ni tabaarakallaahu yàlla dogal na euh, duñu am tabaski. Mhm. ba keroog àddina di tukki. Mhm. ma doon laaj ba xam lu mel noonu defal nañu ko si aj wala am na leneen loo xamante ni ku yàlla mayul wërsëg ba mag dikk la ba nga xam ni yow aji daal tabaarakallaahu xëy na wees na wala yaakaar nga ni sa dund doo si aji est-ce que am na leneen beneen jaamu yàlla wala loo leneen loo war a def tabaarakallaahu lu ko fànq. waaw loolu yàlla ci boppam moo wax lu gën a kàddu yàlla moo gën a kawe kàddu yonent bi te yàlla li wax mooy boo ko mënee waaw te léegi li ngay xamee ni boo ko def ko boo mënul yéene mooy sa jëf te yéene jooju dañ koy aj ci ki ko man def ko innamal a'maalu binniyaati ak niyatul mu'mini xayrum min amalihi lay leen kon bu yàlla ne li man ilay sabila ki nga xam mën na fi ngay aj bu ma ko mënul it te yéene aji gëm moo gën jëfam kon da ngay yéene. Hmm. loolu nga wax tamit ci wàllu tabaski bi xam nga boo demee màkk dañ fay tabaski ndax façon aj yii muy muy ifraad ak tamato ak xiraan hmm. ifraad rek nga ciy def eh, boo amul pro boo amul yàq loo yàq xanaa nga def ko defin wu wu tegu ci yoon doo rendi Mm-hmm. waaye bu dee tamat wala xiraan bu ci nekk dangay rendi xam nga rend bi itam du da du caagi nag dangay dem jënd sa xar mat ca dëkk ba dem tër ko fenn rendi loolu doo ko def. dëgg la xar mi sax doo ko gis. dëgg la yow boo demee ci fi ñuy defee fi ñuy defee ca munaa fi ñuy rendee. Mm-hmm. soo demee ba joxe sa xaalis bañ jox la sa rusi. Mm-hmm. yow pare nga ci yow yow daal wéeral sa ginnaaw ci yàlla rek. xam ni mat la rendi su ko defee ñoom ñooy dem ca fa ñuy rendee. rendi ko. su ko defee noonu la demee ñu bëree bëri dañuy yàpp ni da ngay dem ba màkk boo demee jënd sam xar di rendi hmm. non non demewul noonu. dëgg la yow da ngay dem kon kon fi ñuy rendee doo ko gis. mën nga ko bañ a gis sax. waaw hmm. waaw ndax place bu ñu bu ñu bu ñu ñu organisé la. Hmm. taxawaayu arafa tamit oustaz. waaw waaw bi sax des na. parce que li nga wax ci ni yonent bi dafa rey ñaari xar. waaw benn bi mu yéene ko boppam benn mu yéene ko xeetam ba àddunay tukki ñi nga xam ne am nañu yéene. te. mënuñu ko. Mhm. xam nga damay faral di wax ni sax gis nga xar moomu yonent bi ren di yéene ko mboolem jullit. Mhm. ña amul ba wékku ca sax. daanaka léeg-léegi ñooy gën a wérum tabaski ñi nga xam ne at mu nekk ñu am ko. tabaski dëgg la dëgg la de ndax façon ba ñu koy defee façon ba ñu koy amee. Mhm. ak lañ cay gàll ak la tax ñu di ko def. mooy tax tabaski mii yonent bi yëkkati ci sellalam. xam li mu def lu mu doon ni yéene na ko aw xeetam. lang ca tabaski moom sax yenn saa yi mooy gën a dal xel. sa tëbaskim mbopp mii nga xam ne nii danga ngaa triande jàmbur ba am cam xar wala da ngaa takk biiru koo xam ne amee nga ko bor ba am xar <laughs> dégg naa rek nga daan wax naan bëri na borom kër bu tabaski te bu tabaski bi paase ñu tabaskee ko moom day am loolu day am naa léegi borom kër boo xam ne góorgóorlu na ba xar mu ñëw waaye xar mi tëdd na waaye moom it tëdd na <laughs> ndax la mu daj ba am ko kon tabaarakallaahu loolu lu wér lu lu wér a wér la. Mm-hmm. waaw mm-hmm. yaa ngi ñu dugal sax si tabaski. Mm-hmm. ndax oustaz am na ñoo xam dañuy am ñaari soxna. jënd ñaari xar. ne diw sa xara ngi nii diw sa xara ngi nii. te moom yàlla dogal na du moom moom du am xar. waaw bu ma nee loolu lislaam wax. loolu bu ma nee bay def day jënd ñett. benn moom benn soxna yi kenn ku nekk benn mu ñetti xar su fekkee mënu ko nag eh, benn la man ay soxnaam bu ñu mënee. ñoom nañu jëndal seen bopp. buñ jëndalee seen bopp tabaski ndax tabaski koo man mhm. da nga koy defal sa bopp boo ko mhm. mënul nag ñu defal la ko mhm. ndax tey ku jóg ku ñu koy defal ku nekk boo taxawee ni man ket faf naa ko man ñu bàyyi la nga def ko bu ko defee nag boo jëndalee sa ñaari soxna te man ko jëndal sa bopp muy ñett muy ñetti xaar waaw bul ci waxante nag naan yàpp yi bari ci kër gi te loolu yàq lay doon kenn ku ne xam na ni benn mun a lekk mënut a lekk xar waaye nag yàlla nee na lay yanaalu laahu luxumuha minkum nee na du caag nag yàpp yi wala deret ji laa soxla yëg gi ngeen ma yëg ba rey lu toll ni xar mu toll ni xam ne wóor na ne mënoo koo lekk ci ñetti fan nga rendi ko mm-hmm. ndax sama ndigal looloo ma ci neex mm-hmm. waaw yàpp yàpp woowu est-ce que am na lu ñu ko war a jëfandikoo wala dañ koy def force dafa war a jeex si jour bi wala dañ ko war a saraxee si saa si wala am na lu si yonent bi recommandé da nga da nga yàpp da nga ci da ngay jaay da nga ah, attention da ngay da ngay mm-hmm. da ngay saraxe lekk denc waaw li ñuy bañ daal mooy jaay ci dara moo tax li mu wax ni man baax a jilda adxiyatahu man baax baa jilda adxiyatihi fala adxiya lahu nee nag ku jaay sa deru tabaski sax xa der bi nga jël ko jaay ko amatoo tabaski luñ ci war a jaay am luñ ci war a lekk am luñ ci war a saraxe waaye tamit terewuñu la nga denc waaw nah, ñii nag ñi moom duñ nit ñi moom duñu sarax moom dañuy jël eh, lekk denc waaye sarax bi moom ñu ci bare bari duñ ko def euh, man gis naa tamit oustaz ñi nga xam ni yàlla mën loowu leen fees bu ñu woowee nit mu feesal leen ba pare mhm. ñu jël der baag lenn si yàpp yu jox ko loolu jaaduwul da fayee ko ko loolu fay la waaw ndax loo xam ne boo fa bu fa néewul woon xaalis ngay joxe kon kay mhm. da ngaa jaay yow kay bu fekkee ni da nga koy jox ba jox ko fay ko fay ko comme da ngeen a waxante fay fay ko leneen. Mhm. te nag nga jël ci yàpp yi sarax ko loolu baax na. Mhm. fekk fay nga ko ba pare jëloo ak xam. Mm, tabarakallahu leer na te mhm. xanaa beneen question bi nga xam ni. ndax ñu ngi sax euh, xam naa ni euh, temps bee ngi dem des na ah, waaw question bii daal dina laaj wax dëgg yàlla xëy na débat bu yaatu sax waaye nga boroosul ñu si rek bis bu jege see nag moom da bëgg naa sax invité Thierno Yoro Bane ak ñoom Imam Moussa gi yëpp ngeen waxtaan si pour jaamu yàlla yi te mooy arafa. lu mhm. taxawaay bi benn bis la. àdduna bi yëpp defandoo ko si benn bis. Mhm. waa lu tax tabaski gi nga xamante ni tabaarakallaahu moo ko arafa bis yi euh, maanaam arafa ni ñuy taxawandoo arafa lu tax ñuy wuutee si tabaski digënté lu melni ni ak Sénégal wala si Afrique sax lu tax ñuy taxawando benn bis bu ko def jour bobu sax nga gis ñëpp dañuy wor manam mhm. julit yalla yi ko mën yëpp dañuy wor mhm. ngir magal bisu arafa bi mhm. waye bu tebeski ba joté tabarakallah ñu wuté makka lolu dal xamna ni mom du fi xat ndax débat bu yaatu la waye dal bëgg na bu jégé sé tabarakallah ngeen gingi ci gamu yalla yi ndax ñu julit yi mom bu leen yalla bëggé boole ñu nekk benn fokk ñu nekk benn ndax daaw jéeg tabaski mhm. àddina bi yëpp ñoo bokk même benn jour buñ tabaski ñëpp nag mhm. loola bu fekkonte ne ay nit def réunion ak defi séminaire pour mu am du am te nam te yàlla namm ko problème nag taxawaayu arafa bis sàngam la te amul tiraillement loolu moo xew ci àddina bi yëpp lu ñu organiser la dëkk bi nga xam ne ñoo saytu wàllu aj mhm. ñu teg ko ci seen loxo muy waa Makka ak Madina lépp lu ca aju ñoo koy saytu mu jaral leen di ko di ca di ko natt di ko xool ci alquran ak sunna ba tëral ko. Mhm. wute du ca am. pourtant fu la jooj ñu am ba defee ko noonu ñëpp di ca tënku. Mhm. moo na Sénégal li leen distingué ci wàllu xew-xew yi. Mhm. dadul seen yi bopp yi ñu moom rek. waaye bu dee loo moomal sa bopp li nga moom kenn du ko salfaañee. li nga bokk rek la coow di am. boo seetloo bisu màggalu Touba mosoo dégg fenn ñu ne jàpp nañu bisu màggal nga dégg yenn murit yu ne ca jaxaw mbaa feneen mm-hmm. ne ñun sunu bisu màggal bi sàngam la <laughs> wala gàmmu Tiwaawan ñu jàpp ko ni gàmmu bi sàngam la nga gis ay nit ñu nekk ca jaamal mm-hmm. ne ñun sunu gàmmu Tiwaawan jàpp nu ko samedi dimanche lañ ko jàpp hmm? loolu bu ñu ko jàppee lee li nga xam ni lenn la ñenn sequ ko di ko doxal dinañ ko mm-hmm. organiser li nu bokk nun ñëpp nag muy kalimatu laa ilaha illallah daje ci digg bi hmm. défendre benn cause boo xam ne ñoo koy bokk hmm. foofu werante yi da ciy daal di feeñ mero bi feeñ ci hmm. kenn ku ne la nga ëmbal sa morom doon xaar occasion daal di tey feeñaale te mooy diw neexu neexuma comme ma nag bis la ngam la jàpp dinaa jàpp ba ci des dëgg la de waaw mais kon kon ah. est-ce que est-ce que est-ce que jarul état état bi dugg si parce que suñ réew mi nekk suñu wet rek Gambie kenn sañu fa def ñaari tabaski kenn sañu fa def ñaari korité président ba daal moo naan jàpp nañ ko bis sàngam mhm. te moom day sukkandiku si euh, Arabie Saoudite si màkk yi mhm. nga xam ni tabarkallaa fa la yonent bi tëdd mhm. euh, te ñun fii ñu ëppi tariqa bu dee diine tabarakallaahu euh, fii lañ ko gën a woote ndax fii la Serigne Touba tëdd fii la Serigne Hadj Malick tëdd waaye wuute gi fii la ëpp moo tax ma ni kon est-ce que euh, du ñu interpeller état état bi tabaarakallahu mu dugg si comme que moom mooy sàkku feet yi ne ñetti fan wala ñeenti fan la ñu mayee si tabaski bi. Mhm. benn fan la ñu mayee si màggal ñaari fan la ñu si gàmmu noonu la koy toftalee. Mhm. est-ce que moom du si dugg daal di di euh, maanaam tànn jour bi nga xam ne si la ñuy tabaski bu ko defee wuute bañ bañ a am. waaw loolu loo loolu loolu du dellu ci nguur ndax nguur ak. këru diine yëpp fenn la ñu war a tënku mooy alquran. Mhm. waaw nguur ci boppam. Mhm. day daal di nekkaat beneen yi beneen yi tëralin boo xam ne. Mhm. ndax la muy tëral ak la muy wax ak la muy santaane. bu ñu ko càmbaree dëppoowul ak alquran ak sunna su boobaa day indi jafe-jafe. léegi kay ñoom ñëpp dañuy ànd tënku ci alquran ak sunna. suñ ko defee yàlla mën naa dogal liñ ciy saafara saafarawu. ndax euh, yooyu euh, boo daan xool sax ci wàllu commission yi mm-hmm. Mm-hmm. commission aj gi dañu waxoon ni bu fekkee ni këru diine bu nekk dugal na ci benn élément mm-hmm. gouvernement bi jox leen moyen moyen la leen mën a jox tey bu fekkee ni séntu ko jot na mu jox leen mel ni hélicoptère wala mu jox leen avion boo xam ne wala sax koo xam ne avion buy départ rek la am na fooy toll da ngay romb niir yi jaaxaloo asamaan leer nañ su boobaa bi nga mën a gis weer hmm. su ko defee yooyu yëpp ay ay yitte la rek hmm. yoo xam ni ak ak ak nawlonte nag hmm. nawlonte doylonte parce que bu wóolonte amul rek du sotti su ko defee loolu lu diine ji war a waxtaane la eh, boo xoolee maa ngi mës dégg ci Serigne Mansour si doomu Serigne Cheikh si taawam ne Sénégal dañu waroon am commission d'enquête commission d'enquête waaw commission boo xam ne kilifa këru diine yi. Mhm. dafay am ñu koy càmbar ndax Égypte gee boo demee quatre-vingts fa nekk waaye def nañ coalition ba. doo dégg coow. quatre-vingts yoo xam ne asalaamaaleykum waaw kon daa mel ni dem na. waaw nga àggali yaa ngi woon si Égypte tabaarakallaahu. waaw quatre-vingts tarixa yooyu nga xam ne dañoo def coalition nekk benn mboola mbootaay goo xam ne tànn kenn ci seen biir ci kilifa yooyu jiital ko. Mhm. su ko defee lépp lu aju ci wàllu diine gi dañu koy waxtaane mhm. lépp lu ci rot te fekk. Mhm. indi nar naa indi jiixi jaaxa ñu indi. Eh, li mazahib yi borom mazahib yi bind mazhab yi bind mm-hmm. waxtaane ko ba trouver leen ànd di jaamoo noonu yàlla loolu Sénégal ñeenti tarixa presque ñoo fi siiw lool lool lool lool mm-hmm. waaw waaw ñeenti waaw ñoo fi siiw lool kon nag bu quatre-vingts tarixa mënee doxale noonu war na mën loolu war na mën a am su ko defee organiser élection ku ne xam na ni moo gën a yo moo gën a jafe moo gën a difficile ndax li mu laaj ci ay moyens mm-hmm. laaj ko ci ay séminaire laaj ko ci eh, lu ñu war a imprimerie mm-hmm. imprimer mm-hmm. ba yàlla dogal ñu ne bés sàngam lañu ko jàpp te li muy doywaat lépp ci bis bi bu ñu xëyee tàmbali ko di ko def balaa min wee jot ñu am ay résultats yu concret kenn ku nekk buy tëdd selel tëraloo ko effort yooyu la ñu yéenewul diine rek waaye bu ñu koy yéenee diine dëgg-dëgg. Hmm. Eh, te def ko ñëpp taxaw. Hmm. mu sotti. dëgg mu sotti kon bu ko defee li may faral di wax diine Sénégal. Hmm. diine Sénégal ni ñu ko war a jàpp ni ñu ko jàppee mooy dañu ko jàppee comme marché luuma fu neex waaye lal lu neex waaye jaay waaw. <laughs> marché luuma lañ ko def fu neex waay lal lu neex waay jaay lu la neex yëkkati tudde diine mhm. lépp loo nekk te xam ni boo ko tuddewul diine ñu fudd la nga tudde ko diine pour mu raglu te ñoom kon kon tabaarakallaahu Ibrahima xam na nga xaw nga dévier sax sujet euh, bi waaye du ci wàññi dara parce que rajo bi mhm. rajo jàngale la mhm. rajo yeete la ki ko fi teg mhm. bëggul benn lënt lënt am ci diine bu ñu war a waxtaane te waxtaane wuñ ko lay ndeysaan waaw wa shaawirum fil amri xam nga da dañu xam ni yàlla dogal na daanaka ñu ak yéen ñoo nekk comme que nag tabaarakallaahu li olof naan borom parfum boo bëggee xeeñ parfum del ànd ak borom parfum mhm. bu yàggee rek ñu jiiñ la ko mhm. ñu nit yàlla dogal na ñu ngi mhm. tagg yonent bi tabaarkalla di ànd ak yéen léeg-léeg ñu dem si mbooloo wala daayira yi yëla ñu yor sa lagrose ñu ñuy laaj question yi demee nii luñ si xam tontu liñ si xamul bu nu ñëwee laaj leen dina baax nag léeg-léeg ngeen koy baaxee jaamu yàlla yi ndax am na yu bëri yoo xam ne ñu ngi lënt euh, euh, jullitu Sénégal te ñu mel ni yéen rek la ñuy mën a jaare pour pour xam ko bu rek am na xamanteni beggon na tamit nga ñewal ñu ci mhm. té moy haj haj aj bi nga doon waxtane sank dem ba ci dugg far nodd bi tabarakallah mo la xawa dag euh li nga wax ni li nit di daj ci at haj mhm. est-ce que mun nga ñu ci résumer la rek donte mëno mëno mëno tambalé ni ngay déparer Sénégal jaar Medina jaar makka lepp xeyna xajul si ben sax émission waye nga jéem ñuko résumer rek. pour ñi nga xamante ne ñoo fa mosul dem te nekk ci yoon. Mhm. Euh, ñu xam leen fay xaar pour ñu mhm. mën a waaj. Mhm. beneen bi mooy est-ce que am na ay recommandations yoo xamante ne yonent bi moo ko santaane. pour ku war a dem aji. avant deux mois avant wala un mois tabaarakallahu li nga war a def ci wàllu entraînement euh, moo xam physique la moo xam moral maanaam euh, tabaarakallahu comme que wër kaaba ga mu ngi lay xaar. safa ak maro mu ngi lay xaar est-ce que am na yoo xamante ni est-ce que amul yoo war a def avant ngay dem. Mm-hmm. ndax man kat dégg naa am ñuy dem ba màkk bu ñuy sànni jamra ñu ñu for juróom-ñaari xeer wala 3 euh, fois 7 21 daal di for jur fukk ñaar fukki xeer ak benn jox seen morom ni sànnil ma loolu dégg naa ko. am na am na si ñoo xam ni dañuy wër péng mais buñ demee dañuy fay ay naar daal di jël puus puus ñu teg leen si di wër ak ñoom Kaaba ga wala di daw Safa ak Marwa loolu yëpp tabaarkallaahu dégg nañu ko donte mosuñu fa dem beneen bi mooy waaw mooy li ma la laaj noonu ndagam laaj na entrainement pour dem ak li nga xamante ni moo la fay xaar nga xamal ko jàmm yàlla yi. Mhm. pour ñu fa demagul tabaarkallaahu ñu waajal seen bopp. Mhm. donte du xaj ci benn émission mais nga résumé nu ko. waaw tabarakallah Ibrahima jërëjëf euh, damay revenir dellu gannaaw tuuti nag ci loo xaw a bërxal tuuti. Mhm. ci wàllu ni dem nga ba jaaxle ba bëgg di mhm. référé wu ci màkka ñetti at nga di ko def. Mhm. am na ñu koy def waaye yow moom euh, sañ naa la ni bu ko def waaw bul ko def parce que réew mu nekk. E, seenug ànd nekk benn. rafetal seen diine déggoo charte la ci seen dund.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 waaw mu ne am kilifaay li am solo boo ko hmm. amee am nga solo boo ko amul amoo solo ku wéeruwul yomb ba mu te borom kilifa yi du gàgganti ko ci mbedd xam nga suñ Babacar dañ daan def boo ko tàggoo ni ko maa ngi dem màkka mun la demal te bu fa roy dara hmm. am na ñu ko ciy jam sax di wax ni waaw màkk ga yonent bi tëdd ah kaaba ga ne fa nga naan sa taalibe bu fa roy dara jàppe ni fiiraange fiiraange la fekk na du loolu hmm. dafa xam ne màkka la fay dajee ci ay borom yi ay mazhab yu wuute ndax nga xam ne madahib yi ngay dégg ci lislaam mat na trois cent soixante ngir hmm. ñeenti ngir ci siiw ahmed ibnu hanbal shafii imam malik abu hanifa hmm. ñooñ ñoo ci gën a siiw sénégal la majorité ñu ngi ñu ngi wékku ci ngërum imam malik hmm. yow nag trois cent soixante ngir yoo xam ne yaa ngi dajeek ñoom kenn ku ne ak façon ba ngay jaamoo yàlla façon ba nga koy defee yow nga jóge sénégal dem fa sëbët fees dell nga daal dafay gis koo xam ne buy julli ma ngay jël ay loxoom teg ko ca digg boppam nga daal di jógee foofa ñëw ni man kat ndekete noonu li nu nekkoon du dara gis naa ca kaaba ga kuy julli def nii daal di commencé di ko roy te fekk bokku leen ngeen mu ngeen tënku mm-hmm. loolu tax mu la comme am nga foo tënku ba pare mm-hmm. te du ñu ay jaayil boo demee bu fa roy dara demal rek nga aj sa aj ziyaare yonent bi te dellu siwaat ci la nga nekkoon mm-hmm. mais loolu pour rafetalal la ak organe defaral la sa dund dund bu Mm-hmm. loolu ci jublu mm-hmm. am na sama benn mbokk oustaz boo xam ne nee na dem na ci réewu arab yi dem na ci réew moo xam ne ci réewu arab yi nee na bu nee na bu ñu jullee tisbaar mm-hmm. wëlbatiku julli tàkkusaan ni ba subaati suba la ñu julli waat su suba la ñuy julli subaat euh, euh, tàkkusaan moom subaati bu ñu jullee timis wëlbatiku liqaamaat daal di julli geewee ni ba subaati te ña koy def boo leen doon jam tey bala ñu lay tontu mën nañoo tari kaamil bi dañoo jàng ba ne nee na nga ñëw muna fi ñuy rendee mhm. nee na ku ne xam na ni gileem dañu koy loj ci ginnaaw lañ ko war a jaar boo koy rendi mhm. nag bu la neexee nga rendi ko ci baat bi bu la neexee nga loj ko ci ginnaaw ñaar yëpp mën naa nekk mais xar moom da nga koy rendi ak bëy danga leen di rendi ci ginnaaw ci kanam ngay jaar mhm. boo demee muna gileem yaa xar yaag nag yaag lépp dañ leen di rendi duñ leen loj dañ leen di rendi te ña koy def boo leen posé woon question bala ñu lay tontu mën nañoo tari kaamil bi ñoo la raw téeméeri junni yoon nga fekk fa boobu ixtilaaf nee na am na ci jàkka joo xam ne bu julli jotee bu ñu nee saw fu sawu suufu fakum mhm. bu ñuy sàppewu au lieu ñu sàppewu comme nii ñu sàppee def ak rang mhm. dañuy sàppewu rang mel ni ñuy fay courant est-ce que bu ñëwee ba sës ca miir ba rangaat geneen rang noonu lañ koy defee te ña koy def boo leen songee di leen critiquer mhm. bala ñu lay tontu mën nañoo tari kaamil bi ikhtilaf yoy ci adina bi fess hmm. dal ñoo ñepp nak bu aj ñu ni ñu fess dal la ñëw biir kaaba ga nefa fa hmm. kenn ku nekk la nga gëm nga ne ko appliquer yow nga jóge Sénégal am kilifa gu melni Cheikh Seraj Malik am kilifa gu melni Serigne Touba hmm. am kilifa gu melni Cheikh Omar Fouti nga dem dal di xeeb mbooleem li nga fi xamone gis ko ñom dem dalde di commencer ngir jéggaani lo fekk ñukoy def ci kaaba ga té mas ko wax damay tawaf ci kaaba gi gis mego cigarette ma ne lii moom wër na ma dul sénégalais yi moom. indi ko fi ah. di tawaaf kaaba gis mégo cigarette ci xaram bi. Hmm. alxaramul makki ma ne lii. lu ne mën leen ko leen koo xal waaye seenu fit àggul ci lii ñu di ko def léegi nag ñay dem ba àgg ci caay-caay di def loolu nga wëlbati ko waat xeeb li nga wan gannaaw dem di ko di ko di ko di ko roy moo tax yow euh, am na ñu koy def jamuñu leen xeebuñu leen waxuñu leen dara dafa am fu ñu tënkuwul rek waaye yow mi fa moom dootoo ko sañ kon tabaarakallaahu loolu la bi ci des nag mooy li nga laaj ci wàllu circuit bi mooy tombeek sax ñaareelu question bi ma doon wax mhm. ñi nga xam ne dañu ni boo ajee màkka fi ñeent fukki guddi boo jullee tey boo ñaanee yàlla mu nangu ko loolu ñëpp dañ koy faral dégg boo ajee màkka ba ñëw fi ñeent fukki guddi boo ñaanee yàlla mhm. mu nangu ko mhm. waaw damay faral di wax ni ëpp war naa ëpp ñeent fukki guddi ndax circuit bi ngay def sa ndigalu borom ak coono ba nga ciy daj ba yàlla gërëm la ni la sa cadeau dëgg-dëgg mooy aljanna laa lay fayee kon war ngaa xam ne deseelatu la nga di ko ñaan mu di ko delloo ndax nee na alxajjul mabruur laysa lahu jaza ilal janna aj gu ñu nangu payam daal dëgg dëgg dëgg mooy aljanna koo xam ne nag sa aljanna yemb na yaakaar naa ni boo ñaanatee yàlla mën na ko nangu te du ko aj ci eh, ñeent fukki guddi. Mhm. loolu la Malick doon leeral ci leeral bu yomb mu ne kon daal yàlla jox na la piis boo xam ni bu amee ñeent fukki fan ñu dagg ko <laughs> dootoo wuyu dootoo woote bu dee ci ñeent fukki fan lañ ko man la circuit bi dafa metti ndax wax naa ko bii passé xëy na mhm. dama ciy jaaraat boo bu njëkk mhm. bu ñu masaan a départ Sénégal avion yi ñu ngi daan wàcc Jidda fa la leen bus yi di jëlee départ ñoom yóbbu leen a Munawara bu ñu toogee fa fa se la ñu door a départ waat Madina pour ñëw Màkka 2004 directement Madinatu Munawara mhm. léegi bu ñu demee waat wàcc Madina daal di commencé di dem ci raw du yonent bi di def di boo dalee sa hôtel waxtu wu nekk nga dem julli ji ci raw du yonent bi def say ñaan mhm. def fa semaine mu jural la quarante prières yi ma la doon wax léegi mhm. ñu war faa départ ci bis yi e, juróom-ñaareelu fan bi wala juróom-ñetteel bi ci guddi war a jëm màkka te diggante màkka ak madina nga xam ni mat na presque quatre cent wala cinq cent kilomètres soriwu ko hmm. moo tax ma wax la ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn amul payam ak saxaaba yi mu àndaloon di rawale lislaam hmm. ndax bi muy déparé Makka di gàddaay jëm Madina ku la ni war giléem ak wàcc ak dox juróomi téeméeri kilomètres wala ñeent fukki ñeenti téeméeri kilomètres ak lu topp nga di ko boole dox ak di war te yoon wax léegi la gën a yomb ndax bu njëkk dañ daan ñëw ba jub benn montagne te montagne bi gudd na gudd goo xam ne mënuñu koo yéeg ñu wëri ko te fa nga koy wiiri presque boo ko doolee ci ci li nga mesuré woon mhm. dina la mujj sax jox la six cent kilomètres bu dee montagne boo xam ne nii yab nañu ko ñu yéeg ko wàcc jamono bi la yi a parce que dafa am ay tunnel hmm. montagne bu ñu ñëw ba dañu koy yett def ko benn tunnel jaar ci biir loolu moo tax yoon wi gàtt bi ñu ko mesurer mu toll ci 400 et quelques kilomètres mais ba ko bi franchir hmm. jógee jëm Madina boo ko hmm. xayma woon nañu daan doxee mat na presque juróom benn téeméeri kilomètres si ci ndax daan ñenn ñi sant topp ci di dox <laughs> ngir rek ngir lan lu ni l'islam Mm-hmm. yonent bi daj ci lu nekk ba yàlla xëy xëy ni ko alyawma akmaltu lakum diinakum mm-hmm. wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islaama diina mm-hmm. ni ko wàcc nga sa jaan wàcc na ah léegi bu ñu jógee ma Madina jëm si Màkka dafa am ay station yu ñuy romb ñu bëgg a tuur ndox tuur ndox ñu bëgg a yeesal yeesal ñu bëgg a muskafe muskafe loolu la ñuy jàppoo huit heures fay départ wala sept jëm si jëm si Màkka te te duñu jël vol ñoom car rek car yi bus la ñuy jël waaw bu ñu ñëwee ba fi ñu defee seen euh, armal mhm. mooy biiru ali foofu bu ñu agsee nag ci la ñuy def seen am na ñuy defee sax madina sangoo fa def sa armal def sa lépp waaye nag li gën mooy boo defee sa armal ba pare diggante bi sa njàpp bañ fi toj ba ba ngay agsi màkka parce que diggante biiru ali mhm. ak euh, foofu ci euh, makka mhm. sorewul lool su ko defee boo bu ñu agsee mhm. Mhm. ba agsi ci kaaba gi boo jógee boo defee sa armal ba pare ba agsi ci kaaba gi def sa da ngay def sa talbiya ba ngay agsi labayka allahumma labayka labayka la sharika laka labayka inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika laka labayk mhm. loolu ngay jàppoo ba agsi ci kaaba gi nga def tawaaful qudum moo tax wax naa leen ni kaaba gi boo demee di aji war a umra di nga ko wër ñeenti yoon bu ci ne juróom-ñaari yoon ñeenti yoon ñeenti yoon di ko wër tawaful qudum moy bi nga koy nuyu tawaful ifada moy jour addi mhm. ak tawaf bi ngay def ci sa umra ak tawaful wida bo demé ba sa aj jeex nga wara a pour ñew moy ñeenti yoon yo xam bu ci nek juroom ñaar yoon di ko wër moy doon ñaar fuk ak juroom ñett kon wa di ko wër di ko wër légui so dikkee gis nga entre parenthèses dafa am benn goor gu baax mhm. Euh, daa 2004 bi may dem Màkka may tàggu beneen góor. fekk ko mm. fa. Mm-hmm. mu ni ma yëg nga ne yonent bi nee na boo boo nee dajji sa premier gis kaaba gi. Mm-hmm. te xefagoo gestooguloo tànnaloo nañ la genn ñaan. Mm-hmm. benn ñaan boo xam ne loo ci ñaan mu nangu. ma ne ko waaw mu ni ma looy ñaan ma ne ko ah xëy na ma ñaan euh, wér-gu-yaram wala alal wala gudd fan. wala wilaaya. ma ñaan ci rek mënuma mënuma munu benn rek lañ wax benn ngay tànn ma ko ah mënuma boo ñaanee gudd fan mhm. boo guddee fan te wéroo yoroo du sakkan mun ma boo ñaanee eh, wér gi yaram mm. eh, boo boo ñaanee wér gi yaram te guddoo fan amoo <laughs> loo fajoo du sakkan munuma boo ñaanee tam eh, tabarakallahu alal ju bari te wéroo guddoo fan du sakkan ma ne ko léegi nag kon lu may def mu ne ma comme dañ la tànnaloo benn ñaan rek mm-hmm. su sa bët nee daal ci kaaba gi mm-hmm. mu ne ma doom li ma lay conseillé mooy bu sa bët nee daal ci kaaba gi rek neel yàlla mm-hmm. maa ngi lay ñaan loo ma la ñaan yàlla na ko nangu soo paree nag dem ñaan lu la neex <laughs> soo fa duggee dafa naa yàlla ma tumbaw dégg na ko dem ñaani gudd fan <laughs> ñaanaale wër-gu-yaram ñaanaale alal ñaan wilaaya ñaan lépp xam nga loolu mag rekk a ko xam dëgg soo demee nag tawaaf boobu. Mhm. ak tawaaf boobu ni mu méttee parce que nee naa la bu dee da ngay wër kaaba gi fekk danga ko jege lool lool lool mooy gën a gàtt waaye doo am sécurité ndax buuxante bi. Hmm. da nga koy dànd ca sori sa te boo ko dàndee wër bi day metti hmm. nga wër ko juróom-ñaari yoon wax nañ la boo demee ba jub alxajarul aswad nga fóon ko boo ko mënul fóon nga teg ko loxo boo ko mënul teg loxo nga nuyu ko rek jàll ndax moom la ñu wax ne loxo suñu borom la ci kaw suuf. Hmm. kaaba gi la tabax. mais xajarul aswad kaw asamaan la jóge rek dal ca koñ boobu tafe fa loolu lu naturel la loo xam nit tabaxu ko hmm. moo tax ñu wax ne bi muy wàcc dafa weex comme soow hmm. waaye nit ñi koy tawaaf di ko wër di ko wëree wetu càmmooñ hmm. mu nekk genre aspirateur boo xam ne bon bon yeeg bàkkaar yi lay muucu moo ko tax a ñuul mais turam cosaan alxajarul abyad abyad la tuddoon ginnaaw bi nag la ñuy wax alxajarul aswad muy la pierre noire am na entrepreneur boo xam ne ci ñuy def tawsiixul xaramil makki di yokk kaaba gi di ko tojaat di ko defar nee na gëm na ni lu weex la woon parce que bi mu koy wekki benn jamono li sës ci tabax bi li féete ak miir bi li ñu seele dafa weex dafa weex li féete ci biti moo ñuul mu ne kon gëm na ni li ñu waxoon ne lu weex la dëgg la mais mais xajaratul aswad googu waaw al xajarul aswad xajaratul aswad xajarul aswad xajarul aswad waaw mën nga ñëw wax tuuti si cosaanam. waaw cosaan lu dara lu dul. Hmm. moom kaw asamaan la jóge bi ñu tabaxee Kaaba gi. Hmm. Eh, ci la jóge kaw asamaan dal ci koñ bi mu dal noonu suudewu fa mais li ma li ma ta leeral kay te wax naa ko bii paase. Hmm. Kaaba gi eh, maam Ibrahima jëkku koo tabax te tey koo laaj. addina bi def naan Kaaba gi maam Ibrahima moo ko jëkk a tabax dafa bokk ci ñi ko beesalaat. tajdiidul xaramil makki moom mooy ñeenteelu ko ko beesal. kaaba gi ñi ko jëkk a tabax ay malaayika lañ yàlla sant leen ñu tabax ko dañu ko tabaxee di ko tawaaf di ko wër ndax wër kaaba gi mhm. di ko tawaaf moo ëpp yoon ngay julli ay rakka ci biir foofu ba mu demee ba mel ne lu raaf ràpp mhm. ci la yàlla wax sunu maam aadama abul yi mu beesalaat ko defaraat ko ba tey ñu continuer am ndigalu di ko di ko tawaaf mhm. bi mu demee ba mel ne lu raaf shiisa doomu sunu maam aadama boobu nga xam ne mhm. wax nañ ni moom moom rek moo juddu te nekkul cheikh mhm. te yonent bi bawoo ci moom kooku moo def euh, moo nekk al mujaddidu thalis mooy beesalkatu ñetteel bi mhm. maam ibrahima mooy al mujaddidul rabia mooy ñeenteelu koo xam ne borom bi jox na ko ndiggal ni ko néeg ba nañ ko beesalaat ñu defaraat ko jekkal ko tëj diidaat yooyu nag day am day am ba ci waa ñii fi mujj a nekk waaw ba ci ba ci buur màkk yii Fahd ibn Abdul Aziz mii nga xam ne moo fi mujj a jóge hmm. la mu ca def ci tawsiaat ak ay tajdiidaat kenn xamul nu mu toll lam ca financé kenn xamu ko yokk boobu moo dem ba mujj raw du yonent bi nekk ci biir euh, hmm. yokk bi ñuy yokk kaaba gi ak yokk bi ñu yokk xaramul madani yi hmm. moo dem a dem ba mujj biiru zam-zam waaw fi ñu ko daan ci biir xaram bi ñuy tawaaf dañ ko daan da daan gis teen bi ci biir xaram bi mais dañoo dem ba yokk bi ñuy yokk xaram bi ba mu gën a yaatu mhm. ñu mar bu ko def fi karo boo xam ne lu naaj bi tàng-tàng boo ci dëggee sa tànk karo bi day sedd parce que da nga daan fàndaañu sa sa tànk yi mel ni luy bëgg a ñor mais léegi façon karo ba ñu fa def mhm. lu mu tàng-tàng boo ko dëggee day sedd ci loolu nag la ñu déwiyee bën bënu teen bi mhm. teen bi dañu ko dañu branché tuyau. Mhm. dévier ko mu dem ba ca Safa. Mhm. foofa la la mhm. ndax ci biir xaram bi noonu booy dox léegi di wër. ci kaw teen bi ngay jaar parce que léegi dañoo dévier trou bi. mu féete ji fële ca euh, Safa pour yaatal foofu. tawsiyaat yooyu nag moo nekk Madina ba tax rawdu yonent bi nekk léegi ci biir jumaa yonent bi te rawdu bi nekkul woon ci biir ndax néeg yaa kër ay Aïcha. moo taqaloo woon ak jàkka ji. pantre yaay Aïcha fa la yonent bi génn àdduna ñu denc ko fa tawsiaat yi ñuy yokk na xaram bi nag di ko yokk di ko yokk moo dem ba mujj kër googu lépp dafa dugg nekk ci biir jumaa yonent bi waaw léegi maa ngi dem sax ba eh, def yaatal waaw delsil fa nga ne woon boo ñëwee defee sa tawaaful xudum mm-hmm. ba pare dem sa hôtel mm-hmm. dallu dal jëmm naa mun a mm-hmm. boo demee ak métit ba fa nekk nga xam ni tabaarakallaahu boo demee mun a mhm. eh, gis nga maa ngi koy nettali bi paase rek eh, Thierno di ma ree mun a fa ngay xàmmee nag yem gi nga xam ni nit ñi yàlla moom li mu jàpp mooy ñoom ñëpp a ndax boo demee ñëpp di fandaañu ñëpp taraxlaañu ñëpp def bopp neen mhm. boo ñëwee ba ci seen tànt yooyu da ngay gis ku bàyyi immeuble bu ñu climatisé ca réewam mhm. bàyyi compte bancaire boo xam ni ñëw ci dëkk boo xam ni tànt ya mhm. boo demee ci mën a tànt góor ñaa nga ne tànt jigéen ñaa nga ne tànt góor ñi boo dikkee dangay ngay toñ toñi ba gis foo xaj rek nga daal di teg sa mbalaan ne ku fuñ tëdd jigéen ñi seen tànt noonu biir tànt boobu nga xam ne tey jii di nga fa toog koo xam ne boo bëgg na bokk moom jotaay fii ci biir réew mii. Hmm. alkaati yi duñ la ko may. mukk <laughs> amoo maqaamaam nga dem ba mujj bokk ak moom benn espace ma di ko nett la keroog ceer ma ma ni ko am na kilifa gu mag Sénégal gi jéem naa ñaan naa ko audience ñaari at mu të. Hmm. mënuma fexe ba am audience bi ca mu naa hmm. noo bokk fu ñu tëdd foo xam ni ca yeel balaa doon gégame waaw <laughs> mu mu def may ree nee beneen kilifa bi des moom itam ñoo nga dajee ca bët bi bët setee ca restaurant ba bu ñuy jënd añ mm-hmm. nga xam ne da nga yor ses mbool rang rang waaw bi mu rangee nekk maasus ci ginnaawam mu yor bool mu yor sama bool <laughs> waaw kon mun naa googu ñaata fan nga fa war a def waaw mun naa mun a boo fa fanaanee bët setee da ngay dem arafa mm. boo dellu siwaatee nag ci nga fay def ñaari ñaari guddi ñaari guddi waaw léegi E góor googu ndeysaan ñoo bokk rang noonu mu yor boolam e muy commandé ndeysaan dégg naa toilette di tamit noonu lañ koy rang waaw noonu la di moom kay noonu la e maa ngi dégg nag muy muy wax borom restaurant bi naan ko defal ma ci suul <laughs> ma ni ah waa ji patron tey moom tey doon nab taalibe force kat waaw ah, muy dama ni kii xam naa ceeb bi dina la commande ndax comme dégg naa mu naan defal ma ci suul rek léegi Mhm, mun muna après. a bu ñu jógee foofu boo jógee ba dem ci bët set. Mhm. toilette góor ñaa ngi toilette jigéen ñi. kon ku nekk da ngay jóg pour faj sa aajo yeesal sa njàpp. Mhm. dañu koy rang rang googu di nga ci gis ab ministre di nga ci gis député dinga ci gis xalifa di ci gis ku nekk. ñëpp nekk benn. bu ñu xëyee jawali arafa. arafa bu ñu demee dañ fay yendu. faral leen jant di sooy mais duñ fa julee timis ndax timis ak geewe ñu ngi koy boolee jëmus dalifa ah. waaw waaw léegi foofu taxawaayu arafa bi ngay dégg maa ngi koy wax barki dem rek dafay am ñoo xam dañuy jàpp ni bu ñu nee taxawaayu arafa da ngay ñëw arafa rek daal di jatu suba ba ngoon jot taxaw mm-hmm. te teew ga ngay teew ca dëkk ba rek mm-hmm. lañ ci jublu mm-hmm. waaw boo demee fa ngay nekk ba ngoon jot nga dem Muzdalifa fanaan fa ba fajar nga déparé fa nag dem dem pour ramyul jimaar dem dem muna pour sànni ji jamratul aqaba boo fa jógee nag départ fa nag wuti wutiwaat makka te diggante Muna à Arafa diggante bu gudd la lu gàtt gàtt xëy na dina jege dix kilomètres. Mhm. mais diggante foofu ak euh, euh, fi ngay dellu siwaat pour jimaar yi foofu euh, moom itam presque mat na huit kilomètres. boo jógee foofu nag ci jamratul aqaba war a dem màkka ci kaaba gi foofu mm. mat na juróom-ñaari kilomètre moo tax ñu bëri duñu dugg oto parce que embouteillage bi mooy tax dañuy dox léegi nag nga ñëw pour def nag sa tawaaful ifaada mm. dem dawi safa ak marwa muy kon boo seetloo wëragun nga kaaba gi ñaari yoon waaw ndax tawaaful xudum bi ak ak euh, tawaaful ifaada mu desee la ñaar léegi nag nga jógeete fa ca ngoon ga nag daal di ñëw mun a pour mottali si ñaari fan yi nga fa war a def mhm. soo fa jógee dellu siwaat nag xam ne nag léegi aj ji jeex na nag nga dem Tanaim muy masjidu Aïcha sept kilomètres la diggante mag Màkka mhm. defaat sa beneen armal pour waajal umra ñëwaat ci kaaba gi wër ko juróom-ñaari yoon daw safa ak marwa pour def sa umra léegi kon waragul nga ñetti yoon yoo xam ne bu ci nekk juróom-ñaari shawta nga def est que léegi nag boo ci jógee nag ba nga xam ne sa umra bi jeex na nag ba nga toog xaar sa avion nag foofu nag ci ngay waaj nag pour dellu siwaat def sa tawaaful widaa pour tàggu kaaba gi mu ñeenti wër yi ma la wax na ñeenti wër yooyu bu ci nekk juróom-ñaari yoon lay doon mm-hmm. waaw léegi nag surki bi yëpp nga def ko mm-hmm. ah defuloo caaxaan defuloo mboosoor yàqoo sa bopp labatoo fa ngorowu woo fa peer njaayu fa ba dellu siwaat mm-hmm. ñu limité la ni la ñeen fukki guddi rek lañu la may boo ñaanee mu nangu bu ñeen fukki guddi yi jàllee nga yem ak loolu ku ne xam na ni nit ay waxee noonu. Mhm. waaye yàlla. ëpp na loolu mayam ëpp na lool ndax dañuy e, yu daa afu li may yasha mhm. lu ko neex noonu lay fulandee ay mbiram. Mhm. waaw kon tabaarakallaahu Ibrahima. Ah, ci tënk laaj boobu. en tout cas daal mu ngi mel nii e, ñu ngi jàkkaarloog e, bërëb bu tedd ba tabaarakallaahu daanaka film bi nga ñu tegal lii nag man li ma siy teg rek mooy kon ñi dem nañu waaj. wax dëgg yàlla ndax lii daanaka jeune tabaarkallaahu sax moo ko mën ndagam sax jeunes yi mën sëñ Babacar Si daf daan wax ne màkka ñaar dafa laaj waaleykum salaam قامت سمحة بالحق am ñaari ñaari doole yi mhm. baax na ci doole yi doole kattan ak kattanu xam-xam am kattan am doole ba pare mhm. am xam-xam mhm. kon tabaarakallaahu ibrahima loolu waaw loolu baax na ci ndax dem te li ngay def xamuloo ko xam naa nag euh, euh, dinañu def ay remerciement ci ni ko directrice bi waxee xaja ma ndax euh, béréb bi dafa am ñu ko sopp lool te yàlla dogal seen yéene la ñu am mais amuñu sax xëy na lu dul ñaanal rajo bi lañu am ak ñaanal ñi fi nekk am ñoo xam ni la leen yàlla wërsëgal ci néew ñu ngay koy dagg di ko jàppale rajo bi ci wàllu lépp rek luy jagal parce que rajo moom ko ne xam ne yi muy soxla mm-hmm. euh, ñu di ko tàmbalee ci soxna su baax su muy xajja sahaba Diop wax dëgg yàlla euh, di madam ja taxawaayam ak jàppalem rajo bi wax dëgg yàlla sëriñ bi bàyyi na ci xel te mi ngi koy ñaanal madame Aïda Fall yi tamit eh, Pikine Icotaf taxawaayam ak jàppaleem rajo bi wax dëgg yàlla moom itam eh, eh, ñëpp yëg nañ ko soxna rakki daaf tam wax dëgg yàlla moom itam tabaarakallaahu dañu koy dollee ñaanal di ko sant Ibrahima Demba li dëkk ci Pikine tali bu mag moom itam tabaarakallaahu loxoom agsi na ak léppam Euh, sidi Samba Ba fele ci Malika moom itam ñu koy sant di ñaanal yalla doli ko tawfiq Alassane Ba fele ci Joal moom itamit wax deug yalla buñ ko fàttee Mbaye Diop fele ci marché tilen moom itamit tabarakallah duñ ko fàtte ben yon ci jàppaleem Kumba sibi bi dëkk 4 moom itam taxawayam ak jàppaleem donc Kumba Si bi mm. Alassane Diagana fele ci Cité Fadia itam tabarakallah ak kumba si fële ca Caaroy moom itam ñu ngi koy sant di ko gërëm te noo ngi koy ñaanal Mbay Njaay mbale ca eh, école neuf moom itamit tabaarakallaahu ñu ngi koy sant bu baax kumba Moodi Ja pikin Nord moom itam noonu tabaarakallaahu xajja alimatu mbaw tabaarakallaahu moom itam ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm sunu jigéen bu baax bële nga xam ne soppe rajo bi la muy xajja ami ay dara di sunu sëriñ di sëtu yonent bi ah tabaarakallaahu moom tamit nekk fii ci cité bi yore atelier couture waaye foo ko toll rek rajo bi lay déglu yokk ko ba ca kaw moom tamit moom aja ami ay dara moom it dañ koy sant di ko gërëm xajja alimatu mbaw sopp da baax di ko ñaanalit yàlla teg ko ci yoonu jàmm ndax mi ngi ci waajtaayu li ñu doon waxtaane mooy aj màkka moom moomu nag ñooñu naan jëli nañu kaala waaye yaakaar ne ci la bokk ndax eh, bi mu tuddee eh, Adja Alimatu Mbow sopp da baax ba pare te boo ko waxee te ci numéro sax mu la <laughs> nga na ni moo jiitu ci ñooñu yemu ca jikko jooja la jël jikko Alaaji Abdou Aziz Si ci wàllu dal gaag yiw gaag woyof gaag ak tabaarakallaahu moom daal doon day daara gaa yëpp fa la ñuy làqu ji ña xiif ña son nag ña jamono xaw a not ñëpp tabaarakallaahu foofa la ñuy daw làqu ji fa mu ngi waajal yoonu Makka yal na yàlla taxaw ko jàppale ko bu baax mu aj aj gu rafet dem ci jàmm dellusi ci jàmm góor gu baax daan ñaan boo ko nee damay dem màkk mun la yàlla bu fa bul fa réer yàlla boo fa réerle waaw bu réer bu réerle waaw kon nag tabaarakallaa loolu ñaan gu baax la am na sama benn oustaz oustaz Mouhamed Lamine Ndiaye dëkk ca Adulaay moo ma jàngal ba ma dalal ba bi may dem màkk mu ni ma daal sama meilleur cadeau sama sëriñ bi gën a rëy mooy nga dellu si ma gis la waaw loolu daal mooy sérité bi waaw <coughs> kurus mhm. sàkkuwuma kol sàkkuwuma mbaxana man daal sérité bi gën a doon mooy nga nga dellu si ma jano yow rek <laughs> waaw waaw tabaarakallaahu kon e Ibrahima xam naa tey waxtaan wi dafa xaw a <laughs> ah, am na e, solo sartaak waaw tabaarakallah mhm, bàyyi la nga tàggatoo xam naa duñu mhm. Eh, ñoom El Hadj njaay Ndiaye eh, bële muy tamit ñu ngi leen di dollee nuyoo ko sant ñoom soppee rajo bi lañu turandoo Seydi Hadj Malick la. Mm-hmm. am naa li ma doon leeral ci turandoom. Mm-hmm. turandoom Seydi Hadj Malick mi ñu ni defa dem bàyyi ba aj gi jàll mu daal di dem rek jàng ay baat rek buntu yéen kaccit mu aj moom moom xam naa ne yàkkamti woon nañu leeral loolu ndax. turandoo jàng li mu jàng xam li mu xam ñu. sosal ko lu rëyee noonu laaj nañu daaji ko tabaarakallah mm-hmm. tabaarakallah ok eh, képp ku tudd si El Hadj moom xam naa bég nga waaye Thierno tamit tabaarakallah bég na te ñu ngi koy ziar bu baax moom it liñ ko ñaanal bi ñuy tàmbali rek yàlla yàlla guddal fanam bàyyi ko si réew mi ba lépp lu mu séentu si diine ji séentu ko si tariqa bi tabaarakallah yàlla defal ko ko Euh, ba mu tabaarakallaahu eggali mébétam ba julliti julliti yàlla yëpp tabaarakallaahu xàcc bu defee rek loolu moo doon euh, émission bi euh, yàlla dogal tey ji moom saa daf noo bett sax jël rek indaale indaale nu ñu ñëwoon préparé wu ñu dara moo tax ñu doon sàkku si moom mu leeralal ñu mbir yooyu te foog naa leer na man de leer na sama bopp te leer na ma ni ñi nga xamante ni tabaarakallaahu ñooy déglu tamit leer na si ñoom. ni ngi ko waxee rek ñi nga xam ne ñu ngi dem yàlla leen yàlla yóbbu si jàmm te te lépp lu ñu fa séentu tabaarakallaahu yàlla defal leen ko ñu dem si jàmm bàyyi ñu si jàmm fekk si ñu si jàmm tabaarakallaahu loolu rek moo doon tàggoo bi defee rek ñu bàyyi laak micro bi euh, nga daal di tàggu ñu dem ba beneen yoon incha allah. kon tabaarakallaahu euh, ñoo euh, tënk sunu kàddu foofu. Eh, ba beneen yoon ak jàmm rek ñu mott li ci des ah yàlla dogalee auditeurs yi seen xol sedd ñu apprécier waxtaan wi eh, wax dëgg yàlla ñun tamit ñu daal di wëlbatiku kontaan ndax li boroom xam yoo xam ni ruba xamili fiqiin xayru faqih bari na kuy wax ki lay déglu moo la gën a maîtriser li ngay wax waaye nag yow la yàlla nattoo ngay wax te waxe rajo yi tamit tabaarakallaahu ah dafa xaw dis nag waaw ndax li Maxtaar Sekk bu mboro daan wax naan ku ñu teg ab rajo ci sa loxo tax ngay rajaxu di nga dem foo leen war na safe nga soof leen te la te la tax nga soof leen yaa ko wax ca rajo ba te yëgoo ko waaw mu ne ku ñu teg sa ci sa ku ñu teg ci sa loxo ab rajo tax ngay rajaxu hmm. nee na di nga dem foo waroon a safe ñëpp nga soof leen te la tax nga soof leen yaa ko wax ca rajo <laughs> ah léeg-léeg dinaa koy faral di wax ma ni wax waxtu di waxtu ba yàq ko ci lu matul waxtu waxtu jaru ko. wax waxtu. waxtu lëm. Hmm. wax waxtu di waxtu. ci lu matul waxtu. waxtu jaru waxtu jaru ko. kon tabaarakallaahu ñu ngi ñaanal Thierno yal na yàlla jàppale ko. sunu kilifa gu woyof gi toy maa koy wax barki démb bi ñu laajee nitu yàlla bi ni ko man nihaaya lan mooy àgg ci yàlla mu ne al awdatu ilal bidaaya dellu ca suuf mel ni yéegoo loolu mooy firi àgg. benn yàlla bu mag tabaarakallaahu di ku baax di ko yàlla baaxee muy Serigne Lamine Sy ca Fuuta di suñu wóolare di suñu lépp ñu ngi koy ko ziar nee na bàkkaar bu nekk nit mën na koo am dem ak moom ba jege yàlla ba mu des rëy rëy moom boo jub rek garde yi di la nag dafa woyof tooy tooy tooy tooy tooy tooy waaw li Serigne Pape Malick Sy doon wax ne sëñ Cheikh Ibnu Arabi lii nee na diggante Tiwaawan ak Cees boo ko rangale woon ay nen mën naa jaar ca nen ya bët jàll te benn nen du toj waaye suuf attanu ko ndax wàllu diis ci wàllu yàlla waaw waaw xam nga loolu tabaarakallaahu misaal la woyof toy ba man ngaa jaar ci tabletu nen te du toj te tey benn blanche attanu la ndax diis gann ci wàllu yàlla loolu la yàlla def ci moom ceeno yal na yàlla jàppale ko sunu directrice bu yaru bi te baax te yiw yal na ko yàlla jàppale sunu technicien yi doon na leen yàlla gën a taxaw kon su ko defee ñu yëkkati jotaay bi ba beneen yoon lu fi jub rek mbaaxu yàlla lu dëng nit moom naka jekk matul wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.